ñu ngi waxu violation euh, euh, de l'article 74 yi encore tout à l'heure alinéa 2 ak 47 euh, ñu gis aussi réaction wu avocat yi est-ce que vous pensez aujourd'hui que mën nañ xeex ba DGE revenir sur sa sur sa décision obtenir peut-être gain de cause il faut poursuivre la DGE tout simplement c'est l' article 106 day tegu seen kaw. quand il y a un refus délibéré d' exécuter une décision de justice. Mhm. ngay viser teg ko ci kawam. Mhm. c' est tout simplement ça. ils n'ont qu'à aller devant les juridictions ñu porter plainte contre la DGE. et sanction yi ci war ñu def ko. mais xam nga tout à l'heure da nga am loo wax nga ne est-ce que duñu dañu duñu affaiblir la justice déedéet. Mhm. c' est la DGE elle-même qui s' est affaiblie dans cette histoire là. parce que ñëpp tey. les tirs groupés c'est sur la DGE. te ñoom seen bopp ñoo la gën ils sont en train de violer la loi. pourquoi mais affaiblir la justice parce que ñu rendre. quand même une décision que moom la loi lu toll ne loi pas respecter. xam nga ci les gens ils ont toujours magnifié. ci biir ils ont magnifié ce que la justice a fait. et les gens ont soutenu la justice. mais dans tout ça c'est la DGE qui est visée. les tirs groupés là c'est sur la DG moo tax ma ne fii ki ñu affaiblir fii c'est la DG qui s'est auto affaiblie à travers comment dirais cette prise cette prise de position te xam ma li ci metti mooy quand le président de la République jour bi muy taxaw muy wax mu ne moom du def troisième mandat mais il verra à ce que toutes les décisions de justice soient appliquées dans ce pays na ngi wala muy bokk ci ou bien saluer favorable fii laa doon mën a xamee ndax la mu doon wax keroog ndax moom lu tënku ci moom la wala Hmm. moom waroo taxaw tey naan ne maa ko waxoon yéen vous allez appliquer la décision du te waruñu woon egg si foofu nag xamul tax hmm. Hmm. parce que on est de lundi dina ci taxaw moom si woofam sax c'est pas lui c'est-à-dire on est dans un régime où les les les institutions sont séparées. effectivement loolu la on est en république. donc moom sax loolu sax pour man sax waru ci sax intervenir. institutions yi les gens doivent respecter les institutions te xam nga lii lu ci grave mooy. depuis boobu ba léegi quand le juge Sabassy Faye a donné son ordonnance j'ai vu des sorti ñoo xam ne ci gouvernement bi lañ nekk le ministre Moussa Bocar Thiam ki génn taxaw di wax di ŋaañ juge bi c'est irrespectueux parce que xam lu tax ñoom ñoo fi taxaw fa ba tàyyi ne on ne commande pas des décisions de justice à plus forte raison nag dem bay dal ci kaw juge bi te pourtant loolu ku ñu ko mosaan def ci yeneen cas de figure boo bokkul ci ñoom mais lu ne ngay dégg boo ma dul sax ñu convoqué la ci ci ci devant le procureur. ñoom depuis lors ba léegi ay tir groupé la seen i seen i journaliste seen i seen ministre ñëpp ñu ngi génn di daal ci kaw juge te dara fekku leen ci. waaw seen i journaliste seen i seen i kii ba léegi ñu ngi génn taxaw lu wax lu leen neex ci kaw juge yi kenn waxu ci. léegi daal ñoom fi ñu toll nii tey. ñii ñoo respecté tout loi c'est-à-dire que il faut respecter les institutions ci ñoom la waroon na njëkkee aujourd'hui c'est la DG qui se permet de ne pas du tout respecter respecter la loi c'est honte moo tax euh, honorable fii jarul ay autorité di génn expliquer quoi que soit mbir mi dafa leer nañ xam nga gis nga billaay ni mu man ni ma leeree leeree ko Aliou Sow leeree ko soxna hmm. Maimouna Bousso Male hmm. noonu la la war a leeree xamul tax hmm. parce que gis nga droit on a beau dire science c'est pas ésotérique ay texte dong la. jëlal lu article L 47 boobu wax alinéa 4. ci hmm. code électoral bi. la hmm. wax leer na. Hmm. greffé ci tout simplement l'article 74 alinéa 2 de la loi organique de 2017. boo jëlee ñaar teg ko. mbir bi amul leneen luñ ci mën a wax leneen leneen c'est-à-dire ñoom mënuñu fay génn ba inventé fi wax fi lu weesu ñaari articles yooyu amul leneen. donc ça veut dire que mbir mi leer na ñoom kay dafa am ci benn posture bu ñu nekk mooy que nanguwuñu ko te xam nga bu ma déggee sax mu ne ministre de la justice moom moo leen jox ne il n'appartient même pas au ministre de la justice de l'affaire ça ça appartient au greffe de la cour d'appel ñoom ñoo war a notifier tous ceux qui sont en situation boo xam ne ni dina dina éligibilité c' est pas le ministre de la justice. moo tax ma ne même communiqué boobu li Aliou Sow wax. foofu soo ko lire sax foofu njombe dafa am. Mhm. c' est pas le ministre de de le faire la cour d' appel qui qui doit le faire. et en plus de ça li nga xamante ne moom la Aliou Sow di wax ne lu ñuy nëbb. Hmm. léegi nag na ñëw ci côté politique bi. Hmm. c' est à dire que xam nga tey le fait de ne pas donner à Ousmane Sonko des fiches de parrainage mais am na lu muy tekki. c'est quoi sur le terrain xam nga ne gars yi ñu ngi parrainé. Mhm. mais parrainage dafa dëgër fi ñu toll nii de. sur le terrain c'est vrai que parrainage am na mais parrainage dafa dëgër këj këj këj sur le terrain fi ñu toll nii. ba am na ay leader politique yu génn di ko yuuxu parce que ñu bëri nag dañuy toog ne ñoom dañuy xaar seen ndigalu leader. le caractère sondagier aujourd'hui de la remise des fiches de parrainage tey bu ñu ko joxoon Ousmane Sonko fii dina am leneen lu ciy xew loo xam état bi l'état ne veut pas gis nga côté politique bi côté boobu côté boobu la c'est le caractère sondage de la remise de fiches à Ousmane Sonko parce que tey bu ñu ko joxoon fiche de parrainage nga gis rush bi ci nar a am ak maintenant électoralement parlant ñaata la ñuy récolter parrainage bi te état bi fi ñu toll nii loolu bëggu ko parce que ñoom ils ont un candidat boo xamante ni mënul dem. kan Amadou Ba. ah oui mais xam mënul dem man wax naa la man xool li ma la wax nii. Mhm. dama la parrainage bi su jaaree yoon Amadou Ba du am li mu wax kay leer na. maa ko wax. c'est xam non. oui mais il a l'option des députés. am na option des députés moom laa wax mais non d'accord moom laa mais dama ne. parrainage citoyen man laa wax. Hmm. xam nga waxoon naa ko fii. dama ne na citoyen bu jaaree fu mu war a jaar Amadou Ba du ko am. li ma xëy leer na ñoom ñoo la gën a xam aujourd'hui l'impopularité de leur candidat